ngi beral nuyoo également délégation Taïba Cekkeen monsieur le maire Mor lay sant di la gërëm di nuyu suñu grand Moussa Sakho di féliciter également l'ensemble des conseils municipaux. merci à l'équipe de Mbacké Xawar Mbacké Xawar Mbacké Xawar Diamaguène. bisimilahi rahmaani maa ngi lay nuyu di nuyu waa conseil municipal bi yëpp comme ni nga ko waxee tey bés bu am solo la. yàlla moo dogal gannaaw bu ñu population Mbacké wóoloo ba fal ñu list bi jàll mooy félicité suma frère Gallo Ba ah yàlla def tamit conseil municipal boobu naam ñëpp bëggoon nañ nekk adjoint maire affaire bi xat na lool waaye biig bi ñu waxtaanee kër galo ma ne ko man duma diisal dara fépp foo yaakaar ne war naa fa mën a nekk rek ma nekk fa liggéeyal Mbacké rek moo ma ay liggéeyal sama askan ñoo taxaw nii tey ànd ak man parce que tey jii mën naa ne ñaareelu distinction la mm-hmm. parce que weer yële ci ginnaaw am naa confiance su président de la république mu nommé ma ci conseil des ministres décret loolu ci Sénégal ci état mooy cir bi gën a am doole waaye tey nag ñu ñëwaat fii ci élection te ko xam sama papa yàlla na yàlla yokk leeram ay ay jéggal xam ne ku doon yëngu ci politique la kon nag tey su ma demee ba fii ci Mbacke ma nekk doomu naar taalibi Serigne Fallou di dëkk tay Taïba Cekkeen ñëw nekk fi adjoint au maire jàpp naa ne c' est très symbolique et c' est très significatif may ñaanal samay waajur yàlla na yàlla dolli leen jëkkal amoon naa lool waaye liggéeyal Mbacke moo ñu ñor moo tax euh, je comprends l'émotion mais nous sommes contents pour liggéeyal Mbacké et liggéeyal département bi également parce que ñu bëri néew nañ doole te dañ leen a war a liggéeyal dañ leen war a jàppale moo tax euh, je m'excuse pour l'émotion mais je suis encore très content et très ému par cette marque de distinction des populations de Mbacké à mon endroit